Eh, di ko dund jam jaam ñi di bokk ak ñom ñu ñew nag fekk ci Ndiolo nga xamante kenn ko présenter ci àdduna wallaay ndeysaan eh, Ndiolo maa ngi lay nuyu maa ngi sant bu baax a baax la siyaar micro bi micro bi non la eh, waxit ñaari baat rek ci suñu tonton liñ ko ñep ah wa jale jale Sénégal rek jale ñep man man tàmmuma sa ay ay ay yu mel ma ci wax waye ñi ngi jale aduna aduna sax lañu jale ndax yeen defena Papa chon mom du du bokki rek ñoko mom monument la te Sénégal ñëpp bo gisé ñoo ñoo leen gëna joy sax coon mu doon nit ku baax ko xam dañu koy ñaanal fa mu jëm yalla nako gënal fi mu joggé man tam man nag di wax ci ay affaire yi dekk moo tax mënu ma ci wax ñi ngi ñaanal ñëpp jamm ak salaari ñaari baat rek lan lay digël wali ci dese papam bi. ah wa mu ñaari baat tuti rek ci ci ci sa sa papa joju nga xam amna lo xam ci mom lo dund ak mom lo xam aduna xamuñu ko loolu lañ bëgg xam dara tuti waye dañu koy wax mu doli wat rek xam-xàmmee tey jéggal ñépp continuer liggéeyam xam ne papaam sas na ko ndax sas bi mënta weesu nga jël sab liggéey teg ci sa loxol doom ba mu xàmme te yàqu ko kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na yen bi oyof ci kawam ñi ngi ñaanal ñëpp man tàmm ma di wax ci nag moo tax waaw waaw